bonjour. ci profilu candidat yi ak seen jaar-jaar au lieu gi ngeen di focaliser ci ay mbind lu oto rafet rafet lu mu luxe luxe nga amoo chauffeur borom sareet bi dana la jiitu fa ngeen ñëw Sénégal su ma nee man damay proposer programme koo xam ni ñetti pilier la xam nga cinquième président la ñuy fal bu ci mooy ànd nawle dañ ne sénégalais yépp a yem nañ fexe ba yemale sénégalais yi ñu fexe loolu tamit ñu ànd liggéey liggéey bu rafet jëriñante te wàññi wax ji ak politique bi basé ko nag ci savoir xam-xam mooy daara gi le travail mooy tool bi ak penc bi comme li nga xam ni moom daa leen wax ma ma dënkal sama jaar-jaar man ci ñeenti point mooy dàngal daara laa jàng naa daara nekk naa professeur parce que bi ma jàngee kooki ba ma ko laal alxuraan ñun dañuy jàng arab lii nit ñi di jàng fii ci école bi dañ koy jàng primaire secondaire def BFM en ba am ba xam nga lan moo des mooy transition nga jël loolu man ko transmettre ci làkk bi nga moom def rupture rupture ni daan gérer économie état mënut a créer emploi un million d'emploi yi may wax du administration bi de laay yokk de administration bi laay tibb jox ko ci privé bi ñu am doole ñu jàppale leen ñu mën a liggéey je donne un exemple ci sama programme su ma nee damay boole ministre de l' agriculture et environnement mooy mën a forme ay soldats de la yoo xam ne ni àll bi la xam mbay la xam boo demee exemple ci kër diine yi nga gis ne kii am na capacité consommateur mooy li muy dundee bari na li ay njabootam di dundee bari na am na menn d'œuvre boo xam ne ñi ngi nekk ci wet nga jël ay boroomi xam-xam jox jox suuf jox jiw jox ko boroomi xam-xam ne ko bayal ma jënd dañuy créer massivement des emplois sur tout le territoire pôle économique man nii laa koy tax du damay dugg ci Dakar ne li nekk ci Dakar dañ koy conseiller ñiy dabe parce que xam nga lay wàññi mooy li ñu doon dépendre ci bitim réew loolu looy wàññi def parce que li ñuy jëlee ci bitim réew dafa